waral woote bi du lenn lu dul euh, ay mots yi nga xamante ne ñooy gangrène la commune euh, bi ci jiitu mooy euh, problème bi nga xamante ne dafa am ci révision liste électorale bi ndax li waral teewaay bi lenn rek la mooy maanaam madame le maire Khadija Mahécor Diouf avec son équipe dañoo nekk en complexité avec la commission bi nga xamante ne ñoo fi nekk bi gérer révision liste électorale lenn rek mooy lañ ci def li nga xamante ne lu li nga xamante ne amul jaaduwul yoon te c'est anormal mooy maanaam certificat résidence yi nga xamante ne dañ ko attribué ñi nga xamante ne seen i njoñ et yaakaar naa ni li nga xamante ne moo nekkoon rôle liggéey bi nga xamante ne mooy délégué ak chef de quartier yi mooy maanaam joxe certificat domicile pour en retour boo ñëwee ci mairie ñu jox la certificat résidence loolu bi nga xamante ne mooy procédure boobu respecté wuñ ko jaarul yoon li gën a garaaw ci loolu mooy maanaam euh, madame le may euh, euh, Mayakor Diouf dafa bàyyi ba nga xamante ne ñi ngi waajal ubbi révision électorale yi mu def li nga xamante ne mooy maanaam changement wu ci certificat résidence yi changement yi mi ngi jiitoo ci domicile yi il a il a elle mooy maanaam elle a donné à tous les chefs de quartier des certificats de yi nga xamante ne avec des souches te ñun ñi nga xam nañ ñun ñi dëkk Golf xam nañ ni domicile yi nga xamante ne mu lañ doon joxe résidence euh, chef de quartier dañ daan la daan jox avec des registres yi nga xamante ne dañ ko daan enregistré moom it lañ ñëwaat fekkaat ko ci mairie bi yi nga xamante ne mooy résidence yi ñuy joxe fii et nous trouvons ça que la commune looloo tax ñu koy dénoncé et euh, li nga xamante ne nag la ñuy mettre en en en kii nu ñu koy waxatee euh, di interpeller aussi le préfet et le sous-préfet pour que ñu xam ni ce qui se passe ici au niveau de la commune ci golfe sud bii bi nga xamante ne mooy révision liste électorale yi dara jaaru fi yoon. e ñi ngi leen di wax nag ñu ñëw bàyyi ci xel ndax bu ñu ko deful ñun ñi nga xamante ne mooy ndaw yi nga xamante ne ñoo ne ci commune bi dinañ arrêté révision yi fi am. ndax ñun suñu commune bi ñu nangu yenn yi te ñi ngi def ay transfert yoo xamante ne tey jii kenn xamul fu mu loolu bokk na ci problème bi nga xamante ne ci yu gën ndaw ci commune la bu ñu ci loolu commune bi ba fi maire bi faloo ba léegi bientôt deux ans tegu fi brique lenn la fi def mooy maire bii nekk suñu ginnaaw mooy lii mu peinture et ce qu'il a ce qu'il a mooy lenn rek la mooy ut confort yaakaar naa ni nit ku baax bu ñu la falee balaa ngay wut sa confort war nga xool confort bi nga xamante ne mooy askan wi la fal askan wi mooy waa golf golf boo xoolee xam ni dara doxul guddi boo leen fi ñëwoon bu ñu defoon point de presse guddi gi ngeen xam ne tey golf ci lëndëm lañ ne lëndëm crise golf désordre moo fi am boo jëlee suñu corniche bi li fa nekk ci nga xamante ne mooy artisan yi fa nekk yàq yàq yàq commune bi te loolu yëpp ci aska ci ci reñam la amee mooy maanaam mooy maanaam moom mu ngi seetaan commune bi ci désordre loolu nag ñun dañoo pare ne fas yéene pour euh, pour euh, dénoncer ko pour waa golf xam ni kii nga xamante ne moo fi ne ñëwul pour liggéey ba mu toogee ba tey du OPV du OPV du li nga xamante ne mooy maanaam service technique bu normal bi nga xamante ne moom la commune soxla bu war a doxal ñu am ko dara doxu fi et ce qui est plus grave dans tout ça un agent administratif bi nga xamante ne moo fi nekkoon ñu koy wax Amadou Sall mi nga xamante ne moo nekkoon ci euh, agent euh, euh, état civil bi du moins il était le chef de service mm-hmm. pour def seen i mbuxum lépp li nga xamante ne moo jëm ci liste électorale yi dañ ko fi bëgg a jëlee te dañ ko fi sax jëlee laay wax jëlee nañ ko fi affecté ko FIGMIC pour motif ne dañuy renforcer état civil bu nekk FIGMIC et ce qui est archi ndax daam bi nga xamante ne moo nekk FIGMIC kooku nga xamante ne moo nekk état civil bi am miñ fi jëlee kooku moo ko formé kon xam nga ni kooku loolu amul cohérence loolu yëpp nag buñ koy def c'est juste que pour def seeni i mbuxum yi nga xamante ne moo bëgg a am ci liste électorale yi ñu jëm dañuy mettre en témoin opinion nationale international ñu xam ni tey jii ce qui se à Golf Sud lu graaw la ñi ngi wax nag euh, waa Golf Sud ñu taxaw xam ni maire bii ñu fal dañ ko fal par par erreur te ñun loolu wone na ko deux ans boo xamante ne amul brique bu mu teg jëmalewul commune bi kanam ay njoñam la fi nekkal loolu rek moo fi am. dafa tële quoi. dafa tële effectivement maintenant nag dafa am loo xamante ne foog ñu soulever ko pour le cas de Taïba Golf Sud. Taïba Golf Sud ñi ngi ñaanal suñu chef de quartier yàlla na ko yàlla xaaree àjjana Pa Diallo Sall. maintenant ñun lenn lañuy dañuy fi sujet mooy maanaam ñun pour ñu am certificat de domicile dañuy ñëw. ba champ de course bi A et ce qui est anormal bu ñu demee ba ñun Taïba ñun mënuñoo mënuñoo téye suñuy am suñu chef de quartier boo xamante ne moo ñuy délivrer des certificats de domicile ça veut dire que kon ñun motatuñu lu ñu doon. et pour cela il faudra que ñun ñi nga xamante ne ñoo dëkk ba ñu woote une assemblée général fal suñu chef de quartier. te ce qui est plus grave dans tout ça chef de quartier bi nga xamante ne moo nekk champ de course à dafa nekk à leur mooy maanaam moom dafa leen arrangé moo tax ñun mu jël suñu certificat de domicile délivré ko ko pour ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo dëkk Taïba bu ñu soxlaa domicile sax il faut ñu ñëw ba champ de course à te loolu du yoon loolu daal la taxoon ñu woote di wax euh, première tranche même unité 5 et aussi am na problème bi nga xamante ne foog ñu dénoncé ko mooy le problème le problème des gardiens qui sont au niveau des écoles et trois mois sans salaire ñun dañuy interpeller à chaque fois ci ñi nga xamante ne mooy maanaam les agents les agents qui sont au niveau de la mairie lu ñuy dund ci mairie bi ñoom rek a ko xam parce que ñoom arrangé wuñu leen ànduñu ak ñoom politiquement ñi ngi leen di xeex suba ak ngoon guddi ak bëccëg lii daal moo waroon woote bi waa golf xam ni li fi tax a jug mooy maanaam ñun ñi nga xamante ne waa golf ñu fi taxaw ñu xam ni maire bii ñu fi fal dañ ko fal par défo ndax amu lenn loo xamante ne def na ko lu ñu mën a wan lu ñu mën a lu ñu mën teg suñu bët départ li naan foo départ bu amee rek xamal ni njëlbeen bi du baax te puusul paasul voilà te bu eh, cin bu naree eh, neex bu baxee xeeñ voilà li mu njëkk a def mooy dès son première euh, première année 67 agents la njëkk a dàkk 67 ah agents yooyu ñi ngi woon ak moom ak ci yoon ba tey ñi ngi moom ci yoon ba tey te tey ji loolu sax gars yi ñi ngi ciy poursuivre ba léegi pare guñ ci moom loolu nag loolu nag tey ji pour wane ni kii nii dafa ñëw rek juste pour jël commune bi indi fi désordre yàqate ko voilà pour fayantoo te ñun dañoo weesu loolu ñun golf gi ñun fi lañ juddoo duñu ay doxandéem fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee di wax nag ñu xam ni commune bi mi ngi nii moo yi nga xamante ne ce sont les moo kii gangrènent la commune c'est la raison pour laquelle ñu woote pour wax ak actuel pour wax ak yi pour wax ak dëkk bi pour wax ak askan wi ñu xam ni Golf Sud dara doxu fi rien ne marche di leen sant di leen gërëm c'est Omar Gaye chers amis retenez qu'aujourd'hui nous sommes là dans un contexte très pour dénoncer des irrégularités qui se produisent au niveau de la commune, notamment à la mairie, euh, à l'occasion de l'inscription sur le fichier électoral. Nous avons constaté que la mairesse, avec son équipe, mais également avec la complicité des membres de la commission, euh, sont en train de faire ce qu'on appelle de la fraude, en confectionnant des certificats de résidence pour leurs militants et sympathisants. Donc il faut retenir au niveau des quartiers, les chefs de quartier qui délivraient des actes de domicile, euh, la mairesse leur a proposé un autre format qui est euh, harmonisé à son goût, euh, ce qui est étrange et bizarre. Donc il faut constater tout simplement que la nouvelle équipe qui a été là pour faire du Yewi Askanbi est maintenant ce qu'on appelle dans la servitude, la servitude des populations euh, qui s'inscrit à porte-à-faux contre ce qu'on appelle la philosophie de Yewwi Askan Wi. Donc nous regrettons non seulement leur élection, mais également leur démarche partisane qui risque de compromettre l'avenir de la commune en particulier et du Sénégal en général. Parce que les élections présidentielles euh, représentent une occasion charnière pour ce pays. Donc si l'on y prend garde, ils risquent d'enrôler des électeurs qui ne sont pas de la commune. Donc ils sont, en train de faire des transferts. Ça, Euh, le membre essentiel de la commission a été démis. Il s'appelle Kanté. C'est ça le fait qu'ils font constater. L'autre aspect est qu'il y a un quartier qui s'appelle Taïba. Euh, dans ce quartier, actuellement, on n'a plus de chef de quartier. Donc c'est le regretté, notre papa Feu Salah Diallo, paix à son âme. Mais il y a des dignes vieillards qui sont dans ce quartier qui peuvent être nommés ou, ou élus délégués de quartier. Donc si le maire et son équipe refusent d'installer un délégué de quartier dans ce quartier au niveau de champ de course A, nous, nous un deal et une fraude entre euh, le maire, son équipe, mais également le délégué de quartier qui fournit ces actes de domicile au nom de, de, la mairesse est même le mal, en personne. La source du mal est l'acte du mal, si vous voulez. Parce que depuis son élection, rien ne va dans, cette commune. Nous ne le disons pas de façon partisane, mais c'est ce qui peut être constaté. Pas plus tard que hier soir, Golf était dans le noir. Et vous pourrez le vérifier ce soir même. En venant à Golf, il y a l'insalubrité qui règne à maître. Donc avant de, de, de faire une réflexion de son bureau, de sa mairie, pour son confort personnel, elle devait d'abord et avant tout penser au confort des populations qui l'ont élue. Et c'est regrettable. L'autre aspect est que dans le terrain que nous sommes, le terrain parce que notamment, la, la, la mairesse compte en tout cas enlever ce mur agrandir la mairie pour empiéter sur, en tout cas, le terrain de football. Et là, j'attire la responsabilité et l'attention des jeunes du quartier. Mm -hmm. S'ils acceptent, le maire va le faire sans problème, c'est leur problème. S'ils n'acceptent pas, ils n'ont qu'à sortir et manifester contre cette volonté de la mairesse d'empiéter euh, des mètres carrés sur le terrain où les jeunes s'épanouissent. Ça, on ne va pas l'accepter et c'est très anormal. Mhm. Maintenant, je vais en venir au niveau de euh, la mairie avec un agent d'ailleurs qui était incontournable, qui a toujours servi golf dans, dans, la, dignité et l'honneur. Mm-hmm. Il a été affecté au centre d'état civil secondaire de FITMIC mm-hmm. pour des motifs qui ne peuvent pas être justifiés. Parce que s'ils disent qu'ils euh, veulent renforcer l'état civil secondaire de FITMIC, ça c'est archi faux. Et c'est pas vrai. Parce que la dame qui est là-bas, c'est elle qui a même formé euh, l'agent qu'on a affecté là-bas. Donc c'est pas cohérent et c'est inacceptable. C'est pas Euh, y a beaucoup également de nos euh, voisins qui sont exclus injustement de la mairie, parce que c'est des, euh, des, agents de, de, de, techniciens de surface qui entretenaient la régie au niveau de la commune. Ils sont exclus, sans droit, ni titre, ni, ni loi. Donc c'est ce qu'il faut dénoncer en tout cas euh, à travers l'opinion nationale et internationale. Donc en résumé, retenez, retenez que notre déclaration s'inscrit dans le cadre préélectoral de l'inscription sur les fichiers des, des irrégularités ont été notées dans l'inscription avec des, des, lots de certificats de résidence euh, qui sont confectionnés par le maire et son équipe, mais également pour exclusivement leurs militants et leurs sympathisants. C'est ce qu'il faut noter. Donc tout ce qu'on a dit autour de cette déclaration concerne cette, euh, cette circonstance, ce contexte préélectoral. Et si l'on y prend garde, si l'État et ses représentants ne font pas leur boulot comme il se doit, la euh, commune de Golfe Sud risque d'être compromise par Madame le maire Khadija Moyokor Diouf, son équipe incompétente avec euh, euh, la manigance et la de la commission électorale. Nous vous remercions. Alaikum. Yéen waa golf man la Aïcha Diallo waaw parce que golf ñun fii dañ fi dëkk ñooy jeunesse su golf tey lu ñu metti la ñuy ñaxtu fii si golf sud parce que maire bi malgré que fal nañ ko par erreur mais ñu benn njëriñ parce que déjà xoola oto yi déjà fu ñuy taxaw tali bi xat na oto yi fu leen neex la ñuy gaare oto mbalit yi pour lan ñun ñoo ngi nii fii chaque fois que accident yi dañ fiy am tout le temps tali bi yaatuwul oto yi ñu ko fiy gaaree du dëgg du yoon franchement ñun nag ñoo ngi nii dañuy kaas suñu droit parce que ay jeunes la ñun ñoo ko fal voilà tey nag fal nañ ko mais bu doon suñu sago tey bu démb doon tey kenn du fal Khadija Maykor waa amaluñu benn njëriñ terrain basket bi nag jeunes yee ko moom du ñu permettre kenn di terrain basket bi loolu suñu bakkan lañ ciy teg. voilà parce que tamit neexul jeune golf yi nekk fi amuñu ci benn droit am miñ fi jëlee ci bi du dëgg du yoon tey ku fi am jeune bu fi si am golf këyit grâce à am voilà kon loolu dañ koy ñaxtu tey ba suba dañ koy ñaxtu kon am du fi jugee tey du fi jóge ëllëg loolu nag di dinañ manko ñun jeune golf yëpp def grève voilà ñëw taxaw ci buntu mairie bi merci beaucoup loolu laa amoon lu may wax